actu du jour ñu jukki leen li gën a fës ci biir internet bi dañu koy doo rek affaire Ousmane Sonko ginaaw rek ba ñu tegee ci ndodd mili di viol ak menace de mort jugee rek ci aji Sarr di ab masseuse daal di ko koy jiiñ rek moom Ousmane Sonko mu daal di génnoon nag def ab point de presse ngir xam ne du dem wuy ji section de recherche ginnaaw rek ci convocation boobu lee di Adji Sarr daal ko koy def jëm ci moom moom Ousmane Sonko ne du daal di dem. ba tax rek ñi nga xamante ni ñoo di militant wu parti Pastef bi lee daal di génnoon rek ndiki démb ci altine ji fes dell rek ci buntu kër Ousmane Sonko nga xamante ni rek convocation boobule Ousmane Sonko nangu ko wuy ji ginnaaw rek limité parlementaire bi mu ko mayee rek yoon ngir mu daal di def rek li ni mel ba tax rek force de l'ordre yi daal di rek jëm kër Ousmane Sonko ngir daal di dakkal lépp loo xamante ni rek manifestation la rek nar faa xew ginnaaw rek jamono ji ñu dundee mbas mi di Covid 19 di tere rek lépp loo xamante ni da di rassemblement waaye militants yi rek dañoo daal di mer rek ba fut ba tax rek ñu janoo ko force de l'ordre yi ba jàkkaarloo ba métti woon lool rek ca Ndakaaru ak yeneen région yu nekkee fii ci euh, Sénégal ba tax rek lañ ca mën a jàpp buñ sukkandikoo rek ci l'observateur manifestant yi ñi nga toll ci yoo xamante ni rek yoon daal leen di teg loxo ginnaaw rek ba ñuy rek ay feu yu métti di taal rek oto yi jàmbur yi nga xamante ñi ngi nekkee foofee daal di rek jëfandikoo ay vidéo yi nga xamante ni bii am nañ ko ginnaaw rek ci ay caméra de surveillance yoo xamante ni monté war nañ ko rek foofee muy sukkandikoo rek ci Dakar Actu vidéo yooyu nag moo leen daal di may rek ñu daal di jot a jàpp lu tolloog 45 rek ci ay manifestant rek ndiki démb rek ci talaata ji foofe rek ca militant yu parti Pastef bile di Ousmane Sonko ci affaire Ousmane Sonko rek ci la ñuy daal di deseni ndax gis nañ ne rek diwaanu Diourbel janoog taskatu xibaar yi ngir xamal ne kii di Macky Sall moom Khadim Dieng moo yëkkati rek yooyu le kàddu ak mbokkam yooyu le xamal ne Macky Sall ne bu ñu rek jàppee seen leader bi di Ousmane Sonko ñoom rek dinañ def seen kéem kattan ba dëkk bi rek dina instable te bu rek lay daal di doon moom Khadim Dieng rek moo daal yëkkati yooyu le kàddu ngir xam le ne duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg rek ñuy daal di emprisonné seen leader bi lee di Ousmane Sonko. dañuy desandi rek ci affrontement yi nga xamante ni doxoon na démb rek ci force de l'ordre yi ak partisan yu Ousmane Sonko ginnaaw rek ba nga xamante ni bii bis Dakar dem dikki daal nañ leen di yàqate te ñuy def ni numéro rek moo di manifestant yi. ba tax rek ñoom ñu ne dinañ dakkal seen dem ak dikk rek pour des raisons de sécurité ba yeneen i jamono mu nekk nag ab information boo xamante ni bii dina métti lool ci ñi nga xamante ni ñoo doon jëfandikoo lii di bisso Dakar dem dikk ñu wéyandi ba tey rek ci affaire Ousmane Sonko ginnaaw ba nga xamante ni l'immunité parlementaire moo ko daal di may rek mu dem wuy ji euh, boobu boobule convocation rek jëm ci section de recherche wala assemblée nationale nag daal nañuy saisir rek niki tey rek ci talaata ji yem ko juróom-ñeenti fan ci weerum février ginnaaw rek. ba ñu daal defee ab réunion rek ak député ya ba tax rek président bi daal di rek jël ab commission rek ngir ñu occuper rek boobule démarche rek ngir daal di dindi li nga xamante ni moo di immunité parlementaire kii di Ousmane Sonko buñ sukkandikoo rek ci Thiey Dakar mi xam la yooyu la xibaar waaye nag procédure boobule dina daal di durer lu toll ak juróom-ñetti fan dinañ ci dikkaar rek ci suñu yeneen jotaayu xibaar ba tey rek ci affaire Ousmane Sonko ngi gis ne rek mi ngi wéy rek di lëmbee réseaux sociaux yi jamono ji waaye ki nga xamante ni bii rek daf caa mer ba fottu rek nekkul kenn ki nga xamante ni moo di ndaw si utiliser photo ngir xam ne ne moom mooy Adji Sarr rek mi jiñ euh, viol ak menace de euh, kii di Ousmane Sonko borom photo boobule rek dafa daal di génn rek mer ba fottu ginnaaw rek ba mu dénkee ay kàddoom waa Dakar Actu ngir xam ne ne moom Awa Thiam la tudd tuddul benn yoon aji Sarr te nag li nga xamante ni def nañ ko ko mu di bello photom bi ñu utiliser ngir xam ne ne moom mooy masseuse bi def li ni mel metti na ko lool ndax moom mère de famille te dafa am borom kër ndaxte lii nga xamante ni def nañ ko yàq na bu baax a baax lii di réputation ba tax rek muy ñaan ñi nga xamante ni ñoo di partager yi les information ñuy xool bu baax a baax photo yi ñuy utiliser ndax lii ñu ko def moom metti na ko lool ba tax rek dafa daal jël rek ab avocat rek bëgg a bind rek ab plainte jëmee ci télé bi nga xamante ni bii rek moo njëkk daal di fësal photom ne moom mooy aji saal ndax def koo naqari lool lool lool moom nag Awa Thiam mer na ca ba futtu ginnaaw rek ci kàddu yooyu nga xamante ne ni rek dénk na ko waa Dakar Actu ñu àddu ci leneen ginnaaw bi nga xamante ni rek mooy l' inspection académie bu dakaar daal nay rek bëgg soppi heure yi ci école élémentaire yi rek ginnaaw rek jàngoro ji bëgg a lëmbe mim réew rek di Covid 19 ngir ñu daal di soppi rek li nga xamante ni bii rek moo di heure yi jëm ci école. élémentaire yi waaye nag institut Notre-Dame daal dina rek bañ rek ci boobu la décision nga xamante ni rek inspection académie daal dina koy jël lañ ca wund rek moo di nee na ñoom du nangu benn yoon ñàkk seen i revenu ci seen cantine yi buñ sukkandikoo rek ci source a mi xam la yooyu la xibaar fi mu nekk ni daal institut Notre-Dame daal bañ rek ba tëdd ci l' inspection d' académie bi nga xamante ni jël na ko ngir soppi rek li nga xamante ne nii moo di heure yi ci école élémentaire yi ñu àddu ci leneen cité Nations Unies de Golfe lañ fa fekk rek moo di corps sans bu benn bébé bu ñu sànni rek ci benn fosse euh, septique mu sukkandikoo rek ci yenn suuf si lu tollook juróomi fan toilette yi rek nee nañ dafa daal di jàllul benn yoon ci noonee rek la boroom kër gi ndax foofee rek ay locataire ñoo fa dëkk ci noonee rek la borom kër gi daal di wootee rek benn déboucheur ngir mu daal di ñëw rek ca canal ba xool lan moo waral rek toilette yi paasewul ci noonee rek la ñu daal di nag gisee benn bébé boo xamante dañ koo daal di sànni rek ca biir poste ba ba taxoo rek yëf yi daal di nangutoon jàll benn yoon ñoom nak ci lañ defee nag alerte ci sapeur pompier ba mu xamal leen ne liir bi sax ba ko fa sànni yàggul dara daal ne ubbi jëm ca mbir moomee lépp loo xamante ni rek ruusaat na ci jëm ci mila mbir dinañ leen ko indilaatal ci suñu yeneen ni jotaayu xibaar ñu wax ci leneen naqar bu wàcc rek ca diwaanu Touba mu di soxna ba ñaan nekk soxna ci sëriñ mënta Mountakha Mbacké Bachir di xalif général des Mourides moo daal di ñàkk bakkanam niki démb ci guddi tey rek ci talaata ji xamal nañu ne dinañ ko jenc rek ci dëkk bu sell boobu lee di Touba ba tax rek équipe bu 24 actu bi yëpp di ko jaale famiyam te di ko ñaanal suñu borom daal di koy xaare ci aljana yi gën a kawe dañu koy daal di jeexaleek mbas meek tolluwaayam ci biir mi ñu gis ne nag jamono ji rek dafa daal di yokku ba tax rek ñu ne Sénégal atteint la barre des 700 décès mu mel ne nag nombre de décès yi dafa yokku lool ba mbas mi nag duggee ci réewum Sénégal ak léegi mu di le 2 mars 2020 ba jamono ji rek moom la ñu daal di am ñi ñuy saytu nag ci lali hôpital ñu ngi toll ci 4 478 ba tax rek ministre bi rek di gën di ñaax askan bi ñu gën a sàmmonte que mesure barrières yi kër euh, docteur digle te it ñu daal di éviter lépp loo xamante ni rek da di rassemblement ngir mën a yokku rek mbas mi bëgg a lëmbee mim réew di covid 19 ba tax rek ñu ciy gën di ñaax rek askan bi ñu gën koo daal di bàyyi xel bu baax a baax lii rek moo fi gënoon a fës ami internet yi di dajale doon ba ëllëg ak jàmm